di wax bay xexet bay xataraayu ba nara infractus wala crise cardiaque ya xam ya xam sincèrement parler il ne faut jamais attendre na nga fexé wax na la de waxon na ko yag na ko wax ci ay live déggu len ne ku bëgg ma tontu la rek kaddu gi rafetul mais loolu gëm sa wajur bu goor ëmb juroom ñent wër wosin ci bisu ngénte li nga yëgal ma ñew ndaw tal la tàmbale tontu du ma tontu ku koy xaar ci man doo ko am déedéet doo ko mës a rawatina léegi rawatina léegi wax waratuñu wax waratuñu déedéet kon damay gërëm askanu Sénégal musuñoo ñàkk dara ndax ñoom musuñoo ñàkk dara lu toll ci tarfatal ay ni ndax ñoom kon ñun bu ñuy gërëm askanu Sénégal ñuy gërëm man de Pape Alé musumaa ñàkk dara ndax askanu Sénégal féete nañ ma fépp féete nañ ma fépp kon lépp lu ñu def dañ koy xeeb askan bi nag yéena moom ndogal yi de ndax coow li lu muy bëri